tax tamit euh, euh, bi ma soxna ci waxe dégg naa li ma wax bu baax waaw parce que nit ñi tamit dañ ne gan mën ko teree lépp ba mu des xool ak nett li waaye keroog jotaay ba euh, am na lu mu ca seetlu gis ko waaw loolu moo ko intéressé waaw loolu moo tax tamit ñun loolu dañ koy fonk respecté ko waaw parce que nit ku nekk ak li ko intéressé waaye moom xam naa ni sell gëm fa gis ak occupation ba liggéey ba jàng ma góor ñi yitte bi pas-pas bi ah moo moo tax mu mu bëgg ñu ñëw kon nag loolu tamit incha allah yàlla ko tas mu ko yaakaar boobu te loolu tamit mooy waree nit ku baax la ndax am na ñoo xamante ni mu ngoog ci leneen la ñuy dox ñooñu tamit loolu ñooñu dañuy seeti ña koy dox waaye ku bëgg yàlla tamit da ngay seeti waa kër yàlla waaw ah, jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax a baax yàlla na yàlla barkeel yéen ñu yëpp ku ci am lu muy laaj ci diineem maa ngi koy déglu sinon ñu ñu ñu ñu euh, def ñaan incha allahu taala waaw ci question ci ci ci ci domaine yëpp je suis à l'écoute incha allah daje yombul du dëgg waaw <laughs> déedéet da man dama am euh, bon question boo xam ne moo ñëw toujours ñu ngi nekk fii ak liggéey par rapport ak liggéey bi ñu yor dañuy dañuy xëy bu ñuy xëy bon am na moment yoo xam ne yàlla dinañu dimbali ñu mën julli fajar bala muy dem léeg-léeg duñ ko moom donc suñu demee aussi bon man damay joxe exemple si man fa ma nekk mën naa mën naa war naa mën a mën naa julli mais man dama xam ne teewlu teew mës essayé naa ko mais duma am teewlu bi ci war te xam nga loolu tamit defe naa ne day yàq julli ñàkk teewlu boobu di yaa ngi xalaat ku lay bett ak ku lay parce que man xool naa ne am naa fu mu mën a julli commencé woon naa ko mais mujj dama ko arrêté te su may déglu euh, bon ñii damay def ñuy waaraate yooyu li ñuy wax ci boru julli yi ñàkk julli wax ni mu mel loolu daf lay xaw a tiital ba léegi chaque fois damay bëgg di laajte di jël ay at xam naa ne wax ji benn la parce que yàlla doon benn wax ji la du ñaar du ñett donc dama doon euh, yeesalaat rek laaj ko xam ndax suñu ñibbisee comme ñu fay ko man moom xam naa ne su ma ñibbisee aw ma soxla su ma ñibbisee moom def naa yëpp maa nga ca julli waaye nag dinaa ko teewlu wax dëgg yàlla dinaa jox dinaa ko julli commencement dinaa taaya def li ci war enchaîné waat beneen waxtu bi du ma def asalaamaaleykum ba jub per jël beneen waxtu dinaa julli waxtu bi toog def ba def taaya après waaw soog a enchaîné waat beneen julli kon daal loolu laa amoon waaw jàmbaar nga sax. waaw. daf may métti nag yàlla xam na ne su ma nekkee. am na heure yi nga xam ne moom julli fajar su ma nekkee ci bis bi ba su ma téléphone bi sonné ah sama xol bi day métti day métti parce que da nga xam ne lii yaa ngi tooñ yaa ngi tooñ te tooñoo suñu borom ngay tooñ te yaa ngay dem liggéey yi daal affaire dafa xaw a <laughs> c'est compliqué waaw c'est-à-dire que yow sax li waaw sa bismillah ma sama kii waaw comme ni ko soxna si waxee ay imaam affaire ak ay ñuy jàngal diine. tool yi bëri nañu voilà dañuy wax ni crèche julli daal. yaa ngi wax waxtu bi waxtu lépp la war a julli sax foo mënti nekk ak yàlla yaa ngi fi wax te ñii yenn saa yi ñuy wax que ni ñun fi ñuy liggéey rek comme ni ko soxna Penda waxee fi ñuy liggéeyee fii ñoom diina amul dañuy fi ñëpp a fi yem bu ñu fi dugal diina muy catholique ak juif ak lépp. fii daal da ngeen ñëw liggéey dem si yoon te fële ñuy jël caay fajar fekk parce que caay fajar ñoo xam ne sax yenn saa yi ba gee sax dinañ jéeré ba donc boo demee ñibbee nga war fay li nga wax si yëpp te damay dégg ñuy wax que ni ñu dem booy na ne liggéey fenn daal foo xam ni

fay ñoo war a fay fajar tisbaar bu ma mënoon julli fenn julli waxtu ni mu yombee cinq fois par jour nga julli fajar suba julli tisbaar tàkkusaan timis ba gee nga espacé mais ngay ñëw yenn saa yi ngay julli bi laay ba sa tànk yi fay lu tax may dégg nit di wax ni fay baax mais fay ni mu mettee ba pare ñu bëgg si tegal ay encore ay problème mais c'est-à-dire loolu laa comprendre si kii nit ku dem kañ ba am sa pour ñëw au moins aussi ragal sa borom ba ñëw di fay. am sa yéen waaw comme ni ko feen nga boole boobu jullitul cinq minutes parce que nga fay ndóo yëpp c'est tellement long des fois loolu moo bëgg yàlla. dégg ay yenn ay kii yi di wax que ni non non il faut nga julli waxtu boo jullee waxtu yaa tooñ yàlla dugg fi dem loolu. damay toog tuuti di xalaat ni loolu nag problème bi lan la fii boo fi jullee tooñ jaajëf la gisee sa njaboot toog parce que doo am looy fay <laughs> looy doo bi c'est très. la nga bañ julli waxtu kooku moom yaa parce que jàkk yaa ngi ñëpp fii doo problème boobu moom. te yàlla quand même nit la koo xam ne il est. te Sénégal am na benn benn ku ma waxtaanal fan yee passé daf ma ne moom papaam dafay liggéey bërëb bi muy liggéeyee dafa dafa bi muy commencé dafa ñëw di julli dafa wax heure julli dafa jot mu ñëw bàyyi julli liggéey bi dem di julli ci nee bi mu ñëwee euh, patron bi daal di woo ko ci bureau ne ko kaay yow nga doon def. per instant bi man la gisul mu ne ko dama demoon di julli mu ne ko fii kenn du fi julli te Sénégal la fii kenn du fi julli mu ne ko ah kon xamal na bis ni que tey liggéeyatuma mu ne papaam toog na sept ans yoo xam ne liggéeyul te mi ngi yor njaboot bu saw sew ñu sonn lool te waaye papaam daf ne ñàkk julli gi muy ñàkk julli foofu moom jaral ko ko mu bàyyi liggéey bismillah bu dee am na keneen benn <laughs> problème ah man de sama liggéeyukaay laa koy def sama pause maa ko moom loolu naa leen ko leeral sama pause maa ko moom da ngeen ñu defaral saal pour pause damay dem jàpp ba set julli te boobu ba léegi maa ngi koy def ci sant yàlla suñu maam amul moom benn mu duñ la ko ci soo bu amee sa heure pause yaa ko moom ñu defal la leen fànn am nga sa ay bagages yu dugg nga dem ko fay julli tranquille. waaw da nga am ah, ah, da nga am chance nag. am na yoo xam ne boo ko fa defoon. am na yoo xam ne boo ko jullee doo fa julli tàkkusaan. Hmm. parce que déjà déjà ñoom ñëpp dañ lay bu dee ay tubaab. ñom ñep mer nañ la bañ nañ la bés bobu lay tambalé ça dépend si nit ña. da ngay dajeel da ngay dajeel xam nga tuba bi ñu bari ñoo xam ni ñu bëree loolu la ñu ñëw. ñu dégg. may leen kàbbal mais bi mu kàbbalee man dama tiit.

dañ koy def en suspens ma nga gars yi dem gëstuwaat ak yu demee noonu ñi xam na damay wax bu baax euh, comme li ma koy waxee toujours euh, ngëm il faut que ñu xam ne ngëm soo ko bëggee comprendre da ngay comprendre bàmmeel bàmmeel c'est personnel pour man islam c'est la même chose c'est personnel tey jii ñun ñëpp suñ faatu woon kenn ku nekk sa bàmmeel la ku ku wéet ak sa borom la yàlla wax na ko sax nee na yowmal qiyaam jaam bi dinañ ko at yàlla dina ko atte atte ba mu yaakaar ni moom dong la musa la am ci créature waaw bi yàlla dina ko atte ba mu jàpp ni moom dong moom dong moo existé keneen amul donc pour vous dire que la relation entre nit ki ak boromam mooy borom bi tabaraka wa taala c'est une relation intime et personnelle kooku loolu duñ ko comprendre rek daanaka waxtaan bi jaratul muy àgg mooy kenn ku ci nekk ce diine fi la toll ah mais non ngay pratiquer légui nak loolu motax nak man souvent duma ma bëgg di joxé des des des réponses standard pourquoi parce que kenn ku nekk ak ay réalité am ku ak situation maa ngi dégg ben sew-sew bu bu sëñ bi wax légui mu par exemple tu peux travailler ay avec des pauses des trucs comme ça mais amna ci liggéey yo xamante par exemple usine ay usine nga yor lo xamanteni wala calculs, yi yor ay calcul yo xamanteni minutes musiba di am. donc wala euh, les taylorisation yoy nga xamanteni ki day jël ki jox ki ki jël ki jox ki yow ma donc motax lolu damay wax ne kenn ku ci sa la ak mais la règle mom ñepp xam nañ ko. inna kaanat ala almuminina kitaaban mawquutan yàlla moom moo organiser julli gi ne waxtu wii la waxtu wii la léegi ki nga xamante ni moom il a les possibilités de le faire fa lillahi alhamdu ki ci des moom su amee su ñàkkee matal diineem mais du ñëpp ñoo matal seen diine déedéet am na ku dul julli ci waxtu bàkkaar bu rëy la mais am na keneen kuy def beneen bàkkaar am na kuy fen te fen moo gën a di lépp ci bàkkaar am na kuy def beneen beneen njombe am na kuy moy am na kuy naan sàngara am na kuy euh, sàcc am na kuy wuruj am na kuy rambaaj ku nekk am na sa péché xaw ma péché mignon xaw ma péché péché xaw ma xaw ma doon waaw péché nu muy mignon wee <laughs> tubaab bi ñooy wax lu nekk di <laughs> démb moom laa ne wax ca xadra ba man leen ne ñu ne la musique adoucit les mœurs man leen ban mœurs lay lay adoucit musique kañ dugal ci musiba musique ku xam saawun dëgg xam ni saawun ci musiba la lay dugal ah saawun de lay da lay da lay da lay adoucir déedéet ci musiba la lay dugal démb am na loolu dama ko fi waxaat ndax taalibe yi ba pare dañ ne ma ah, sëñ bi démb sa waxtaan bi dafa xaw a kii de waaw waaw moom donc donc li ma bëgg a wax mooy kenn ku ci nekk

léegi nag kenn ku ci nekk ak interprétation loolu nag comme li ñuy wax les textes sont sacrés et les interprétations libres kenn ku ci nekk noo déggee sa diine noo toll sa diggante ak sa borom soo paree nga dem jéggulu yalla wala nga tu wala nga joy wala nga balu ak yalla wala lolu sa mbir la parce que amna lo xamanteni man duma ko duma ko du ko justifier duma ko expliquer awma lay buma koy laye waxtu julli dal waxtu julli la la ca dess nak diggante nit ki la ak ak boromam su ko defee am nay facilité am na ñu ci am ay ay ay yombal comme na si am na koo xamante ni peut-être ko amu ko keneen euh, keneen noonu keneen noonu waaye règle bi daal nañ xam ni waxtu julli moom waxtu julli la bàkkaar ba ca nekk tamit bàkkaar la loolu nañ ko xam bu baax su ko defee nag nit ki bàkkaaram digganteem ak boroomam la su ëllëgee du ko yàlla di duma kenn du ko fekkee du koy teral tamit kenn du ko fekkee D'accord, par rapport mhm. la question mhm. donc balance balance. Mhm. valeur c'est islam quoi. cest à dire que attention aussi les femmes nous dañuy galvaudé ak euh, changer terme xam nga euh, terme attention. pourquoi parce que. gis nga liggéey ci arab moo ngi signifie amal dañuy wax ne diine ñaar la al ilmu wal amalu mooy xam-xam ak jëfe ko léegi nag am na ci borom surtout Sénégal moom laa gën a xam te te noonu la demee sax ñu bëri dé cerno Sew Sew laay wax de Iba déglu leen bu baax li may wax gis nga ilmu mooy xam-xam amal je jëfe sa xam-xam moy pratiquer sa xam-xam mais amal bi en même temps synonyme le la travail dégg ngeen wax ci léegi vous amna ci borom firikat yi euh, xam-xam ak xam-xam bi xam-xam bi au lieu ñu wax est-ce que xam ngeen lay voilà compliqué parce que nous tu ba sol ko ci nit te pour différencier les yi c'est-à-dire que boobu ñuy wax fañ ko nit yalla yi ñu terme euh, du pour salaire ndax salaire amul. bobu moy do jangé xam-xam ci daara ji ba pratique koy pratiquer amal est-ce que da ngeen li may wax loolu lu lu jafee lijjanti la ci bopp sénégalais yi dangay ngay gis koo xamante ni daan non man saa man jarul sax may julli parce que liggéey jaamu yàlla la man damaa demoon dóori waar déedéet bokkul ak loolu su non non non ça ça n'a rien à par exemple nag dem di ñàq pour dundal say njaboot loolu am na ay ngëneel yu ci yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam mais bokkut ak liggéey jaamu yàlla bi liggéey bii ñuy wax ci wàllu xam ak jëfe jëfe jëfe xam mooy nga jàng nu ñuy jullee dem di ko jëfe loolu mooy moom la ñuy wax amal moom la ñuy wax liggéey ci nitu yàlla yi xaw xaw ma ndax comprendre ngeen li may wax lu sew la Sénégal nag fexe nañu ba ñëpp gëm ne liggéey jaamu yàlla ñu bëri ci lañ soo waxee ñu ne liggéey jaamu yàlla la déedéet liggéey yëpp ñu jaamu yàlla déedéet jaamu yàlla jaamu yàlla liggéey léggéey la liggéey nag dina la dimbali ci sa jaamu yàlla parce que ku liggéeyul doo yor say njaboot kuy liggéeyul noonu nga déggé mais pas le terme liguey jaamu yalla la nga bëgg jël liguey yëkëti ko ci euh, cadre jaamu yalla ba du jaamu yalla taxawé liguey taxaw nga wara dem liguey ji wala ñu wara tollo wala ñu wara leen balancer non non non kooku erreur la c'est une erreur sémantique bo xamanteni euh euh euh nu mu euh, euh nu ñu koy waxé suñu lexique lexique religieux bu Sénégal kooku erreur la man dina ci def liguey pour nit ñi comprendre le terme amal du liguey amal mooy jëfe li nga jàng xam ngeen li ma bëgg lu sew la de après na ma kàr ci YouTube dinaa ko lijjanti incha allah Thierno comprendre li ma bëgg a wax mu rëy la. mais jëfe li nga jàng si diine. waaw mooy amal. mooy jaamu yàlla. mooy liggéey. ñun moom lañ jëlee moom la ñu wax naan liggéey jaamu yàlla du liggéey mooy jaamu yàlla. baat bi day changé baat dañ changé dañ ko dañoo trahir le sens. dañ ko fekk loolu ñi ko ñi ko prôné am na lu doon lu doon yaree njaboot gi ñu pour ñu nangoo euh, jaamu yàlla waaye nangoo liggéey. waaw loolu loolu kii la parce que dafa sensible. te wax jooju dafa gën a ba am na liggéey boo munti def. waaw comme liggéey la rek. waaw baax na.

ñun dañuy juum si loolu dama leen jox benn exemple précis dafa am xam nga dañ ne sooy lekk dama nga naan lan bismillah d'accord waa léegi est-ce que bismillah dina daganal yàpp mbaam du ko daganal est-ce que bismillah dina daganal euh, kii verre champagne jamais parce que yow doo xamoon sensu bismillah doo doo tim mbaam di ko lekk soo xamoon luy lu bismillah di mooy li may def je le fais au nom de Dieu

la France n'est plus chrétienne. ah, ah non non non non non la France a des racines chrétiennes. mais nest ay France ay athée lañu sëñ bi ay <laughs> est église yëpp tëj na. juif chrétien c'est la ñun nous ko mm. mais ñii industriel français yi dañu. oustaz bu Sénégal xamul France li la culture française la religion française xamul niñu doxé mu naan waaw léegi so soo soo soo dagan nañu ndax ñom ay ay chrétien France c'est ils ont des origines. des racines des racines judéo-chrétiennes mais ils chrétien. donc Le gay, ay sew sew la yo xamanteni euh yu jara selal la jaamu yalla jaamu yalla la le la kenn ku ko je ko parce que dafay yenn question yi lu melni sey mel sais man duma ci répondre pourquoi parce que ki ma ne répondre pas ki ma wo ci ñu mu jox ma tous les détails mm-hmm. ah, doomu duggal <laughs> man bismillah bi Je ne man duma tak de mm-hmm. indi leen condition wala ki ñëw ne sëñ bi takkal sëy bi dama engagé wu ci ne condition mm-hmm. amul ki ñuy takk ëmbul ay way juróom ak ay kilifaam an ah soo ko deful dañuy mooy teg mooy gi man maa koy jël man da vingt vingt euros yi may jox dina tax may may ubbi buntu bàkkaar ñu ma ci dugg du ma ëllëg yomal xiyaama non non non il faut que lépp leer question bi tamit dafa démb rek dal nañu ca xadra ba laaj nañ ma loo xamante ni mais loo leen tontu dégg nañ ko ba ñu paree ba ñu àndee ba ñu ma expliqué su ma waxoon leneen musiba ah oui du ko def y a des choses il faut que ñu am détail yëpp. ah yow sëñ bi mën nga woo avocat ne ko damaa am dossier nangam nangam mais danaan la ñëwal ci bureau bi. Mhm. te loolu ngay dem rek di wax ak moom da nga ko koy fay. Mhm. mu jël détail yi xool bu baax yëpp soo engagé wu. Ah, c'est la même chose diine du noonu te am na y a des questions c'est des questions générales on peut pas donner des réponses standard parce que kenn ku ci nekk ak mbiram.

nga ñëw di aay aaylu di naan alhamdulilah nahmadu di di arabal fekk yow yaa ngi ubbi buntu bàkkaar non non non il faut que ñu kii donc question yi euh, souvent il faut que ñu dugg ci détails yi ba ñu xam sew-sew yi mën a tontu affaire yu julleeg affaire yooyu yëpp c'est la même chose léegi nag ki nga xamante nag moom engagé wu na leeral ay mbiram wax li mu war a wax kooku fa lillahi alhamdu wa shukru ñii ci des noonu am na ñu bëri ci gars yi dama leen koy wax man leen soo leen demee def seen entretien bu dee lépp fa mais proposé ne man kat sama la bureau c'est un militaire sax bon il n'est pas militaire mais il travaille avec l'armée française dans l'armée française c'est borom mais tu ne bureau wutal nañ leen fa benn chambre pour

mais bi mu jëlee yor olof yi waa ji da ko woon ne ko lii bu ko sol fii quoi. waaw parce que dañ koy tere solol chemise ak pantalon. waay di ñëw nag rendez-vous yi bëriwul. waaye ne ko bu dee yow li nga soloon moo tax nga am rendez-vous yi solaat ko nga ñëwaat quoi. <laughs> tu vois <laughs> <laughs> ma ngoog ma ngoog. donc c'est intérêt lañ xam. ah si tubaab du la du gisee ci yow njariñ. mais bi yow boo ngay julli ci kaw bureau ba. bureau bi sax la lay wane ne kaay. te xaalis bi dugg. ñoom loolu moo leen intéressé donc ñu nit il faut ñuy dox ci loolu xam bu baax ni ñuy naxanteeg ñoom ba mën di mag yi bu leen yaakaar ne am na benn nit yàlla bu ñoo Thierno Mansour Baro mm-hmm. moo ngi ca Mbuur yëpp xam nañ ko mais ñooñu ñoo def ndànk maslaa rayante ak gars yi neexante ak ñoom ba samp ci foyer yi foyer yi mag ñi kii tukulóor daan nekk ak ak sunu mbokk soninke yi lijjanti ba foyer bu nekk ñu wutal leen fa saal ñuy julli mais noonu lañ naxantee ba jàkk yi pilule génn

ku nekk comme sa tomb rek nga nekk si. waaw waaw c'est personnel wax ni affaire lu képp koo xam daal gëm nga yàlla. waaw boo toogee comme ni ma waxee ñi nga xam dañuy def dëkk bàkkaar. waaw boo déggee ñu wax ni julli wax. waaw mooy nga toog fii. waaw di déglu jëm suba musique heure bi jot. waaw julli woo kooku yaa ko tey.

te defoo ko. waaw loolu moom la wax toujours la ñuy wax ne nag non non attention. Ah, loolu attention wa non non xam nga xam nga am na loo la règle moom laa wax de. la règle règle xam nga doo règle juridique boo gis. dafa am l'esprit et la lettre. faut faire attention avec ça problème ak xat-xat bu mu tax. ñuy galvaudé ak di changer mbir yi. gis nga bàkkaar su ko doon def.

kooku soo ko laajee question moom danay wax li li ko intéressé wala danay wax selon la culture sénégalaise bokkul te kaay moom beneen affaire maa ngi koy wax tamit mais est-ce que nous ñun ñi ñëw est-ce que dañ ñoo takk indi ñu fii non est-ce qu'on est obligé de rester ici non ah pourquoi lu tax de qui Maroc lu tax demuñu dëkki euh, Tunisie lu tax demuñu toog Sénégal on a on a fait notre choix de venir ici donc il faut qu'on assume ça C'est loolu dëgg yi ñoo ngi ingénieur lañu jàng ba Sénégal mais fi dañ di fi liggéey di am seen teraanga léegi nag comme yaa liggéey sa salaire bu baax sëñ bi assumer comme ni ngay sa salaire de lekk di ci man lo laa gëm. il faut pas se leurrer. parce que amna ci yo xamanteni pour man ce n'est même pas sincère sun diggante ak suñu borom. nit dal doy def li ngay def as engagé as sa engagement la ca lu ca xew ëllëg tamit yow na nek na nek yow. bu bu bu mu nekk ab oustaz bu mu nekk ab serigne motax man duma jël ben engagement. déedéet kon c'est personnel. ku nek ak sa borom man suñu neexoon léegi ñu ne dañuy ñibbi kañ ma ñu téye tey jii doone da ngay ñibbi Sénégal kan mo lay téye.

tuba ba tuba ba ñew ciow la am ci suba ga ñepp kenn julli wul mom mu ñaa julli si déglu leen bax li may wax qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé ba ñu xeyé suba ca bis ba ca top tuba bi dana yéen ñi fi yéen ñi fi yéen ñi yeen ñi julli si waatul ñepp ku fi julli si wetu ma la ana Cheikh Cissé mu ne ko mu ne ko yow heure bu jot heure bu la neex julli lu la neex defal

kon nag loo ciy def engagé wul su ëllëgee nag loo ci am tamit bul bul jiñ kenn bul wax kenn. waaw ah, mooy problème iman waaw problème de ngëm la. ma ngox yal nañu yàlla boole dimbali. yal nañu yàlla boole suturaal. Ah, ñun daal ma man daal li may wax. mooy na nañu góorgóorlu ci suñu diine. góor góorgóorlu di dem di def di def le maximum. la ca des nag ñu bàyyi ci yërmande yàlla. man loolu laa gëm. li ci des li ci des ñu xam ni yàlla. yërmandeem ñun ñëpp xaj nañ ci wax naa ko sànq te yërmandeem bi gën a mag mooy aljanna ñun ñëpp xaj nañ fa li ci des nag c'est personnel nit ki digganteem ak borom la boromam la lu mu ca def ak lu mu ca deful kenn ku nekk xam nga kenn ku nekk xam nga sa diggante si borom yal nañu yàlla boole jàppale yal nañu yàlla boole sutural yal nañu yàlla boole dimbale kenn ndax ndax yonent bi wax na kullu bnu aadam xataawun kullu bnu aadam xataawun wa xayrul xataa'iina tawaabuun yonent nee na amul kenn ku ku am bopp muy jëm ca kaw say tànk jëm ci suuf te doo juum njuumte yi moo bokkul ku nekk am nga lu sa faiblesse am nga sa kii am nga sa histoire am nga loo xamante ni du jotee doo koy def doo ko tey am nga sa faiblesse li ci des nag ñu bàyyi ci loxo yàlla waaw mais nag Euh, nañu toujours respecté règle yi waaw du yàlla nii lii na nañu wax ne dagan na du ne araam na nañu araam léegi nag li ci des nag kenn ku ci nekk loolu neex defal man moom man du ma téye kenn <laughs> yàlla nañu boole dimbali xanaa ñu fay moom bu ma fay nag moom ma ma lijjanti la ay ay ay ruq moom ci suuf moom waaye comme comme c'est gratuit moom du ma génne benn secret waaw yàlla boole dimbali waaw benn nga waaw ba ñu julli ba pare. waaw mais tu te rends compte que ne yow jàpp yow waaw. ce que da ngay woowaat mbooloo bi en fait personne yi. waaw naka mbooloo moom ñu am nañ julli. yow yaa amul julli yow yaa amul julli yow yaa amul julli. yaa amul julli te te bu dee da ngaa juum. dëgg leen baax règle baax boobu tamit bu dee da ngaa juum. kooku yàlla mën na la jéggal bu dee nag yaa war a def tey ko صلاة وان تسعى السفر مجمع دركتما من صلى بغير وضوء فهو كافر فهو كافر موتخنا يويب دفع جارة باي خل امام دا دا responsabilité responsabilité بو ديجنا سي سوكو ديفي لول دا نيو سي نيت ني دا نيو اي غيري لا نيو دا نيو لغي تاخاو غيس مبولو مي دا ديم تاخاو تا كانام لول نا سين افير وسهو الامام يحمله وسهو الماموم يحمله الامام yaa gàddu ñëpp fi mu ne nii xanaa mooy Thierno Omar mi moo ñu jiite. waaw moo ñu gàddu xam nga moo ñu jiite. fi ne nii njuumte yu sew yi am yëpp moom mi la ko yàlla di laaj ëllëg. moom jiite ci sax sax mi la. xam nga man man li may ay ay di ay jàng alxuraan ak di firi yëpp bi jiite jotee dama na ko demal <laughs> antanu ma ko.

avion coono coono tukki mm. xam wax moom sax wax na ko nee na loolu c'est un cadeau d'Allah prenez-la prenez-le hadiyatu min jël leen soo de soo soo jéggee nombre de kilomètres yi ñu wax diine mais doo ma bëggee wàññi wàññi soo bëggee matal tamit matal la. yow la départ waaw. waaye nag bu nekk pour doxantu de. ay ah. vacances ay xaw ay euh, ay dem ci ay plage ak wala ay tukki caaxaan ah. déedéet. tukki tukki bu dagan lay doon mm-hmm. en plus foofu ngay jëm tamit dafa am jabar nit fu am jabar du fa wàññi mm-hmm. ah non non non dëkk boo am jabar doo fa wàññi ah ndax am jabar kañ yow kañ sa sa moitié nga ba rek am jëkkër tamit doo fa fa wàññi ah? ma ne doo wàññi. lu tax ngay wàññi. parce que loolu loolu loolu foog ñu bàyyi ko xel tukki tukki mu dagan lay doon mais ki nga xamante ne day wër di taxawal rek bëgg di wàññi noonu. bisimilah waaw kay. par exemple day ay doom daal. waaw ku wër tey fukki at ak ñeent la am. 14 ans waaw dina la mën a ji. waaw waaw loolu laa doon laaj est-ce que dina la mën a ji wala da ngay

ah wala xale bu góor bu tëdd gént gént di sëy xëy gis ba mu am la ci tooy kay yii fu mu amee mukallaf nga su amul nag yii yëpp du amul nga am 18 ans mukallaf nga xam nga u ak e bokkul de ah <laughs> ak e ñu bëri fi ne nii am na ñu bëri ay gérée la ñoo nga toog di dox seen seen live soo waxee ñu ne amaguma 18 ans déedéet

parce que parce que tamit. ah attention mais intérêt yi la yow intérêt bi nga jox banque bi du intérêt booy jël yow. mais yow doo favoriser loolu. yàlla suñu tere dara rek doo ko favoriser. Ah, loolu mooy benn la benn la. yàlla suñu laayee dara lu mel ni kon nga. yow waaw mais même boo ko fes yaa ngi aidé ko pour mu lekk ni ba. mais mu mel ne doo naan sàng rek nga jëlee kenn sàng. loolu.